amee site internet daleen ak jàmm seen chaîne préférée Mouride Sadikh TV ab xibaar di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gannaaw génnub àdduna kii di Papito Kara mi nga xam ne kon daal di woon na ñàkk bakkanam ci jamono ji nga xamante ni daal di woon na jël gaal yi daw na wutandi foofee ca diwaanu Espagne moom mi kon mu daal di woon fa jaare ñàkk bakkanam niki tey jii ñu daal di fisal ab xibaar ñu xam ne ni kon ab waajuram bu góor di Baye Moussa Gueye moom mi tamit. dañu ñàkk bakkanam niki tey jile nekk ab xibaar bu tiis lool te metti gannaaw kon ma doomam di Ibrahima Gueye ñu gën ko woon a xamee ci turu Papito Kara mi nga xam ne daal woon a ñàkk bakkanam ci lu yàggul a dara ci gaal yi moom waajuram bu góor mi de di Papa Moussa Gueye daal di nay wuy ji suñu borom niki tey jile di ko ñaanal suñu borom yërëm ko te xare ko àjjana si ba tey nekk li ñeel mbirum xibaar kii di maire Ousmane Sonko ci poste premier ministre moom nag daal di yëkkati ay kàddu cant ak ngërëm mooy tamit daal di fësal ab contentement moom Maître Khady Ngom nag kon mu ngay ñaan rek doomam yi lee di Ousmane Sonko naka noonee kii di Bassirou Diomaye Faye suñu borom yàggal ànd bi ci naka noonee di leen ñaanal ñu mottali seen mission ci jàmm ak salaam gannaaw bi mu xam leen ni kon Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ay fereel la ñu way tamit mu ngay woor askan wi gën a booloo doon benn ngir nag ngir nag boobule nouveau gouvernement ñu mën a réussir ci naka noonu moom maire Khady Ngom ma ngay sàkku rek kon ci doomam jëlee ci Ousmane Sonko ñu bañ a tas yaakaar benn yoon askanu Sénégal nekk na kon yooyu les yi nga xamante ni dañu ko yëkkati gannaaw nomination doomam bi di Ousmane Sonko ci post premier ministre du Sénégal gannaaw kon bi nga xam ne kii di Bassirou Diomaye Faye nañ koy tàbbi mu nekk cinquième président jamono jëlee rek kon moom maire Khady Ngom daal di fësal ab contentement waaye tamit di leen nhà này ở châm ở à, cửa salam